salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu ñu leen di siyaar bu baax di leen di leen di leen dalal jàmm di leen siyaar ci bis bi ak ku tedd ki nga xamante ne ni moom la ñuy liggéeyal muy Cheikh Al Khadim di siyaar Cheikh Sidil Maxtaar di ñaan mu yàgg fi loolu te di siyaar ki nga xam ne moo jiite comité d'organisation Magal Touba du Cheikh Bachir Mbacke Abdoul Khadir ak jëwriñu commission communication culture du chef de Mbacke Bari Gaynde Fatma di siyaare bu baax a baax sunu jëwriñ sunu sëriñ Cheikh Modou Mbacke Abdou Wadoud mi toog nga xam ni moo jiite accueil hébergement et restauration de la presse mm-hmm. di ko beral ak cant bu wér ci ak soññam ak taxaw gi mu ñuy taxaw ci liggéey bu baax mm-hmm. loolu nag ñun dañuy ñëw rek ci waa sous commission éthique bi nga xam ne ñoo bokk ci commission communication culture bi chef du Mbacke Bali Gaynde ma jiite ñu ciy wax ni ñun ren moom li ñu ko waxee rek Sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw mm-hmm. tànk kanam dong la te loolu dañ cee rafet njort bu baax a baax ndax liggéey bi moom moo ko yóbbu fa mu bëgg mm-hmm. ñun ay dong lañ yoo xam ne rek dañ ñoo sant sëñ bi moom sunu lépp mm-hmm. sunu jëmm sunu sunu yàpp yaram sunu deret sunu xam-xam ak sunu lépp ba tax na xëy na ren ji yàlla dimbal nañu ba jotaayu yéenekaay yi maanaam muy wasaare xibaaru commission communication culture ak màggal gi àgg na ren fu sore sori ndax dugg nañ ci benn couverture boo xam ne Amérique yëpp suñu borom dimbali nañu am nañ fa couverture Europe it am nañ fa couverture boo xamante ni yàlla dimbal nañu ñu ngi ñuy seetaan en temps réel téléphone yi tamit smartphone yeeg ba ci Google TV dëgg-dëgg ñu ngi ci ñu ngi ci bouquet yi aussi ay Roku ñu ngi ci bouquet yooyu yëpp ak képp koo xam ne yàlla dogal na nga am boîtier ata wala boîtier de transmission mën nga jàpp maanaam li nga xam ne moom mooy signalu comité d' organisation Magal Touba. Mm. yàlla dimbali nit ren it ñu féddali it daaw lañu defoon muy réseau locale yi maanaam réseau kër yi nga xam ne dañu koo séex ak ñu bari ñu ne ci dëkk bi nga xam ne dañoo am ay réseau mm. dëgg dëgg jàpp ci liggéey bu baax baax mm. ñoom it ñu collaboré ak ñoom ñu taxawal benn signal boo xam ne dañ leen ko jox ba nga xamante ni ñoom ci seen jëm bopp jël nañ signalu comité bi tey jii bari na kër yoo xam ni Touba ñu ngi seetaan euh, signalu comité bi maanaam dañ koo def ci lenn rek mooy fexe ba nga xam ne liggéey bii nga xamante ni moom la comité d'organisation màggal Touba di def ci fànn bi nga xamante ne nii maanaam mooy activité màggal gi ñu fas yéene fexe ba fànn boobu gën a mën a yaatu loolu it dañ ko séq ak nit ñu baree bari ndax donte buñ ci yàlla dogalee si dogalam ak kàttanu Sëñ Tuubaa ñu jiitu koy it séq nañ ko ñu baree bare bari ñoo xam ne ñu mel ni Sëñ Moustapha Ndiaye nga xam ni daanaka jàmbaar lañ ci liggéey bi ñu mel ni Sëñ ñoom Abdou Baaxa Ja ñu mel ni sëñ Amadou Moustapha Mbaye maanaam mënuñoo mënuñoo mënuñoo lim ñëpp waaye dañuy mën a wax rek ni buñ fi nekkut sax ñoom mate nañ lépp xanaa yàlla moo dogal rek ci kàttanam ak coobareem ak ndimbalu sëñ Tuubaa rek ñu bokk ak ñoom loolu di ci di ci di ci jëf ak di ci waxtaan ak ñoom lu ñu ciy jëfit ñu wax ko wax ko ak ñoom yéen dañoo bokk liggéey bi ndax ñun ñëpp benn lañ ndax kenn ku ci nekk ci yéen ñu fi teewit xamante def nañ ko ci diggante bi mm-hmm. ñuy wax ne rek bu leen jàpp ni dara maanaam xañ nañ leen ko fi na ngeen xam ne lépp lu fi nekk rek yéen a ko moom moo xam muy données moo xam muy image moo xam muy information lépp loolu leen fi soxla rek te mu jublu ci activité comité d' organisation Magal Touba loo leen ci ajo boo ñëwee ci sous commission éthique bi comité d' organisation Magal Touba mën ngeen a jël lépp te dara du leen ci fekk ndax loolu la ñu sëñ bi sant loolu la ñu jotit ci ndigal muy wasaare li nga xam ne moom mooy activité commission bi nga xam ne mooy commission communication culture du comité d'organisation Magal Touba loolu laa doon tënk rek ci innovation yoo xam ni def nañ ko yeesal nañ ko avancé nañ ko ba yàlla dimbal nañu ba tey jii ñu ngi sur IP yeneen li ci desit mooy am na pénc yu mel ni kër Sëñ Touba Daaru Manaan ak pénc mu mel ni kër Sëñ Touba Héliport ni nga gisee écran géant yi nekk ci pénc mi nii sonorisé ci kër Sëñ Touba gi jàkkaarloog jumaa ji noonu la amee ci kër Sëñ tubaa gi nekk Daaru Manaan noonu la amee ci kër Sëñ gi nekk Héliport mm-hmm. tey jii boo fa demee lépp luy xew fii mi ngi fay am en direct en temps réel comme ni ngeen koy amee ci téléphone yi ci Samsung Android maanaam bépp support boo xam ne rek tey jii support multimédia la ñu jàpp ne mën nañu faa jàpp màggal gi en temps réel kon loolee nag li ko def lépp Sëriñ Tuubaa la rek ñi di sant Sëriñ Tuubaa bu baax a baax a baax ba ñu suñu borom dimbalee boole ñu ci njabootam suñu borom dimbalee boole ñoo moom def ñu ay murit ñi leen di jéggalu ku ci amit ay laaj ñu tontu la waaye loolu moom moo ñu doon leeral ci liggéey bi ngeen jëf. ci ci ci tënk rek waaw je reviens juste euh, pour féliciter encore une fois le remercier je veux dire même mm. et le khalife général des Mourides Cheikh Sidil Mokhtar et de remercier Dieu le Tout-Puissant mm. de nous avoir choisis parmi les adeptes et les talibés de Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul je remercie aussi Cheikh Ahmed Bamba de nous avoir choisis d'être parmi ses fidèles serviteurs Et pour cela, nous remercions aussi le président du comité d'organisation Magal Touba, chef de Mbaké, chef de chef Bachir mm. Nous, en remercions aussi le, le, président de la commission communication culture, chef de Mbaké Bali Gende Fatma. Mm. Et nous remercions particulièrement aussi le président de la sous-commission accueil hébergement restauration de la presse, Cheikh Moudimbake Abdougoudod, qui est effectivement euh, un encadreur pour nous, un superviseur et aussi euh, euh, une personnalité de taille qui nous permet aussi d'avancer dans le contexte de nos activités. Mm-hmm. Nous revenons à, pour au fait, euh, vous élaborer un peu notre plan de travail de cette année, comme on dit bien, dans notre culture du Mouride. Nous savons que Serigne Touba est une personnalité d'avance et de l'avant. Et pour cette marche, aujourd'hui nous sommes allés à un niveau effectivement supérieur de l'année dernière. car par rapport à la couverture de notre transmission, nous avons une couverture au fait euh, aux États-Unis, en Amérique, et nous avons aussi une couverture dans, de notre transmission en Europe. Et nous avons aussi, euh, nous sommes dans les bouquets, et nous sommes aussi euh, sur Google TV, et nous sommes sur Roku aussi. Et aussi, effectivement, par rapport à ces innovations, nous avons pu maintenir les innovations de l'année dernière de créer un système de transmission en, en, en réseau local, avec, en partenariat bien sûr avec euh, les fournisseurs de chaînes de Touba, comme on les appelle les réseaumanes. Et nous sommes en accord avec eux pour leur donner le signal de nos activités, de notre production avec la commission communication culture du comité d'organisation. Aussi, euh, nous avons pu maintenir effectivement la transmission sur les supports comme euh, le système Android. Euh, nous sommes disponibles aussi sur le système Ubuntu de Linux, disponible sur le système Windows. Et nous sommes sur plusieurs supports et sur tous les supports multimédia. Et pour cette année aussi, nous avons pu euh, euh, améliorer l'état d'emplacement des écrans géants. Vous voyez les LED sur euh, 24 mètres carrés ou 12 mètres carrés. Nous avons pu euh, améliorer les emplacements au niveau des résidences euh, comme euh, la résidence Cheikh Al-Khadim de Darumanan et la résidence Cheikh Al-Khadim de près de l'héliport. Nous avons pu créer des systèmes de transmission par IP, Internet Protocol Television, comme on le dit, IPTV. Et cet Internet Protocol Television nous a permis au fait de pouvoir transmettre le signal d'ici pour que les hôtes, les invités du Grand Magal de Touba puissent euh, vivre effectivement en temps réel euh, l'événement qui se passe au niveau de la résidence Cheikh Al Khadim qui est en face de la grande mosquée de Touba. C'était juste pour élaborer quelques aspects euh, de notre travail. Mais nous savons très bien que le travail euh, est un travail d'ensemble, un travail d'équipe. Pour cela, nous remercions effectivement des personnes comme Moustapha Ndiaye, les Istihama bien sûr, qui est devenu un support euh, sur ce travail. Et des jeunes comme Abdou Bahreja et tant d'autres, nous remercions aussi euh, la présence de Amadou Moustapha Mbaye, mm. qui est une personnalité très souple, très flexible, euh, qui nous appuie et nous accompagne durant des années mm. euh, sur cette activité. Et pour cela, on remercie l'ensemble mm. des personnes membres de l'équipe euh, de la sous-commission ENTIC, comme les développeurs, les ingénieurs de son, les techniciens. Nous en profitons aussi pour souligner que même on reçoit des universitaires. Maintenant, les universités ont pu cautionner les activités de, du comité d'organisation pour effectivement même, vu les résultats que produisent par exemple euh, euh la commission communication culture, ils nous envoient des techniciens de master en, en, en informatique, des techniciens de licence en informatique mm-hmm. et effectivement des personnes euh, qui savent quand même... Euh, Euh, qui savent quand même ce qu'ils font. Mhm. Alors sur cela, nous remercions le, le recteur de l'université euh, de Bambay d'avoir choisi le comité d'organisation du Grand Magal Touba, euh, particulièrement la sous-commission ENTIC, comme collaborateur, comme partenaire, euh, pour renforcer la capacité intellectuelle, la capacité d'expérience des étudiants de l'université de Bambay. Et voilà, c'était en quelque sorte ce que je voulais élaborer. Et pour vous dire que vous aussi, on vous remercie parce que nous sommes tous des collaborateurs. Et on vous ouvre toutes les portes, sur toutes les données que vous voulez exploiter, les portes sont ouvertes car nous travaillons sur open source, c'est-à-dire que les données, Si vous en voulez, effectivement, à votre gré, vous pouvez bien en avoir. Et cela nous fera plaisir de le partager avec vous. Et je voulais vous remercier, et merci.